abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm mbokk internet yu partout TV way leen di abone comme niñ koy waxee sa su ne resté clé câble sur ma chaîne YouTube te ngay wéy di jëm vidéo bi bu baax a baax dina ci am solo euh, problème mu nervi yi nag daal dinay jot a sullikuwaat bi la ñu fa seen see def ab waxtaan euh, ci seen chaîne YouTube bi gannaaw nag ba ñu gisee rek benn live bu nga xam ne rek wala boo ko benn vidéo boo xam ne kii di Pape Alé jot na ko dal di amal ak benn première bi muy ab interview boo xam ne rek eh, daal nañ say jot a souligner lu bare bare bari ci eh, recrutement ya nga xam ne rek moom moo doon am eh, ci mois de mars ya nga xam ne moom moo passé ak mois yi nga xam ne rek mën nañ ne ay doomi aadama yu bare bari daal si jot a ñàkk seen bakkan ci ñoo xam ne rek ci ay manifestation lañ doon dal di bokk di ca participer ba tax nag ñenn nag ñi ñuy woowe ay nervi daal di leen di dóor lii di ay bal ba ñu fa ñàkk seen xibaar moom mii di Pape Alé gannaaw ba mu amalee interview ak kenn ca ña nga xam ne rek mën nañu recruter ne woon nañ leen muy xamle ne kat quarante mille lañ leen daan fay chaque jour maanaam bis bu yàlla sàkk bala ñuy tëdd nag dinañ leen ko daal di defal ci seen compte yi léeg-léeg nag dañ leen koy indil direct rek te timit mën nañ ngàndaay yi nga xam ne rek ñoom ñoo ko yoroon dañ leen ka daal di jox pour nag ñu utiliser ko dal ci kaw ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askan wi mbir yooyee nag du samay kàddu gannaaw interview Pape Alé Niang amaloon ak ki nga xam ne rek moom mooy benn benn ci ay nervi yoo xam ne bokkoon nañ ci manifestation yi ñoom ñoo yëkkati kàddu yi ni mel tax sax jamono bi ñu toll nii ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci parti opposition bi dal di mer ba futt nag ne loolee ci réew moo xam ne rek ne démocratie am na fa jaaduwu fa benn yoon te jamono booba ki nga xam ne rek moom mooy chef de position ma nga ca biir kaso ba di fa dund li nga xam ne moom mooy métit naqar ak tiis comme niñ koy faral di waxee saa su moom mi di président Ousmane Sonko di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di woy di awane